prochaine fois pour gën a mën a xool nu ñuy aborder prochaine fois ay élection incha allah. Euh, ça dérogation boobu noonu waroon naa mën a am te xanaa nag ñu gën a gis nag ñi nga xamante ni activistes yi sax ñu gën a bari ci euh, ci ci assemblée nationale bi quand même. bon dama leen di jaajëfal. bon di di naqarlu bu fekkee ne am na ci waa Pastef yu leen wax ne da ngeen pour man loolu moom Pastef wax ko mooy dafay delloo mbir mi kii yam doonu delloo pour man loolu mooy li gën a naturel gën a nangam mais par contre comme attitude Karim man laa dul saluer. parce que bi muy génn saa yi wax pour moom dafay détaché wu ci Pastef trop war a tiire ci ñoom dem ba ci ay discours am dafay gën a nangul yenn gars yi kaw a te alors que mënoon nga dem laaj ba pare te bañ a xarab Pastef est-ce que da leen doon xarab. non si ci position am naa ko ni ma waxee nii ak yooyu même ñeneen ñi réagir ñëpp. Mm. Euh, looloo tax ñu réagir parce que bi ma ko gisee mu toog ak waa waajooju moom moo déclenché li ko waaji wax. te foofu sax bu xawoon a ànd ak sagoom tuuti parce que bon duma ma jàng mais kii da ngay gis ne buy buy wax il est posé yu dem parce que waxtaan rhétorique la man boo nee ma boo ma xasee maanaam Karim bu leen xasee kële ñëw ne ko pourtant yaa ngi ñuy xas mais bi nga feebaree ñoo la faj dama naan la yow ñaata nga ci defoon. parce que problème bi mooy est-ce que Maram Faye sàll mi taxawoon sax tey bu fekkoon ne ku animé de bonne foi. Mhm. bëgg la dimbale bëgg la yóbbu nga ne du ma sa xaalis mais mën nañu ubbi cagnotte. nga yaakaar waa Pastef Marème fay lem lu bari def ci wax ay xaritam ne leen def ci parce que yow bëgg a am na ñeneen ak ñeneen ñu la faj ñoo xam ne mën nañu ne li ci ëpp ñële la mais man bu ma nit mu wax ma loolu rek li ñuy wax rhétorique lañ koy wax da koy delloo da nga ko wax ma ñaata te boo ma ñaata ci saa si ma jëm la ko pare la ko pour delloo mais taxaw di leen xas tamit même benn nit xam nga nit dafa war a moytu benn jëmm parce que da fa am ay xarit wolof da koy wax nee na loo may say bañ mosal ci say soppe ndax jukkoo ni mel maanaam say bañ mooy kii la contre benn membre Pastef bu taxaw ne la nangam ak nangam mais warul tax yow nga tiire ci ñoom ñëpp parce que ay xarit nga fa am Karim maanaam boo doon wëri xaritam mais doo dem ci waa APR maanaam wax day rafet. parce que bu ngeen di ànd tax. maanaam bari na lu am nii boo xoolee PDS ak Macky Sall niñ ànd ak lu Macky Sall toroxale wut waa PDS bu ngeen dee ànd sax ëllëg bu ngeen di dajewaat sax dafay nekk contre nature. moo tax faaw ñun ni ñuy tàqaloo gis nga sëy même bu mariage sax bu amee am na. mais est-ce que tàqalikoo na ak yéen ndax. Karim tout xam euh, naa Karim du taxaw wax ni. waa lii nii lañu lii lañu def. bu baax lii nii war nañ koo jubbanti lii war nañ ko jooyanti. Karim ci boppam nit du taxaw naan. di laam-laame bëgg senegalam comme mu gënul bëgg Sénégal mënoo ko wax mën nga ko waxee ci leneen mën nga ne peut-être que impulsif parfois buy buy buy wax buy réagir façon de faire mais est-ce que Karim patriote la kenn du ko werante Karim Guy Marius Sagna Ousmane Sonko quelque man man comme passé bañ naa ko même ba ma daan waxtaan ak ñoom ci laay fii temps boobu ñu ngi nekk ci xat-xat dama naa leen hmm. bu ñuy cliente seen biir mën na leen arrêté man ñi ku ma gis ci combat bi gor laa lay jàppee ba keroog nga may wan le contraire Karim malgré may man bi mu génnee attaqué kii parce que coalition bi ma la nekk la attaqué mhm. naa ko mais bon foi ak bëgg réewam. no attends attends mhm. dafa dafa dafa leen attaqué. non si. Oh, ci naka la naka la. non non non attaqué na que suy dem bay ba di leen traité da du ñu nangu dëgg du ñu nangam ak nangam. critique euh, kii bi nga xam ne. par exemple wax wa leen critique ci conférence de presse bi la woon wala. non pas ci comme ci plateau ci plateau yu bëri. ci plateau différents plateau. Mm-hmm. dem ba ko xalifa ki fi nekkoon bi muy wax ci nee na xalifa maanaam ànd sàmm sa kàddu. Mm-hmm. li ñu def la seen liberté la lenn rek moo ci am ti mooy xalifa mooy ñuul ci sawo mi. xalif xalifa rek mooy ñuul ci mi ñu ci des ok quoi. dem bay wax ne bi moment bi ngay tànn soo ko def fi sa sa soon dañu la tegal sàngara ak soow mu meew mu forox. ma jël meew mu forox. Mm-hmm. waaye léegi nag yow loolu est-ce que da ko wax ci nit xam nga dama jàpp ne. Karim Gueye Ababacar Mbuub ak euh, kii euh, Pape Abdoulaye Touré ak lu mën a am mooy. ndax hmm. dañuy tibb benn wala dañuy tibb fukk wala dañuy tibb téeméer lu ñuy tibb ci coalition bi lañ koy tibbee moom. Hmm. man dama parce que loolu am ci ñoom respect moo tax parce que ñun lañ àndaloon parce que le choix est déjà fait man dama jàpp ne benn waa APR boo xam ne politique la toppee woon Macky Sall du xalaata dem di votel euh, Karim Gueye. kon Karim Gueye ci ñun lay mën a tibbee léegi nag buy def. mais askan wi xëy na peut-être am na ñoo xam. waaw non non am na ci xam ne gëm nañu li nga xamante ne moom lay def politiquement laay wax maanaam li buy tibb ñun ñi ngi convaincre ba pare même bu dee ci askan wi foofu rek lay tibbee loolu laa jàpp. Mhm. man dama bi may wax ci Ababacar Mboup ak Karim kenn ku ci nekk li may wax ci yow bokk mais kenn ku nekk bu ma waxee danga xam ne am naa respect ci yow Ababacar Mboup dama ne mooy kenn seul koo xam ne bu du woon ak projet bi moom bu wootee ñëppay ñàkk doog ñëw nag ne ko li nga wax ci président Diomaye ba naan waxut lu leer l'histoire sax maa donné raison parce que li mu doon wax bay wax ci côté le mot genre bi gars yi di wax ak affaire yooyu yëpp ñiy dem di fréquenter. d'accord li mu ci wax wax lu leer ak yooyu. moo tax keroog bi président Diomaye njëkkee taxaw discours wax ma discours am bu mujj bi. dama ko ci hmm. tagee ok li mu waxaatee daal ne aucune nation ne devrait imposer ses règles ses valeurs aux autres. ces règles ces valeurs comme norme universelle. dama ko mhm. jëlaat teg kon Babacar Mboup mi doon wax wala Karim Gueye mi doon wax te ñoom valeurs yooyu la ñuy gën a wax. Mhm. jox na leen seen kii te pourtant li tax loolu gën a am sens ministre luxembourgeois bi doon wax ak président Diomaye. Mhm. foofu may waxaale maam Matar Gueye ne ko maa ngi koy xaar. moom fu daan jaar di wax ne naa na fa jaaraat wax ne c'est à saluer parce que suñu njiitu réew yi comme équipe football a moom la ñuy xool su nekkee ci yoon comme bu masaan ñuy xel di ñaaw dañuy dem hmm. ci place de l'obélisque Ababacar Mboub mën a wax Karim Gueye mën a wax hmm. ak maam Matar Gueye ak Oustaz Makhtar Sall ñooñu tey dañu war a prononcé wu ci lii parce que loolu du lu woyof hmm. du lu du lu woyof te comme ah. ay valeur la léegi nag euh, li am am na mooy génn nañ dem man ci jamono boobu mooy ci af côté diggante élection mais situation exceptionnelle mesure exceptionnelle y a des élections anticipées la maanaam dara lu ci nekk lu ñuy xaar amut. léegi kon man danaa comprendre ci loolu tamit ñu def ci après li mu seede ci Guy Marius loolu laa gëm. pourtant Guy Marius Sagna plus activiste que moom bu membre bu bi ñëwee sax mais tamit ne damaa bëgg ne ku ne ma xujj ma ne la xujj même ci man communication d' ma. d' accord gis nga xoolal mënoon nga sax dem ci liste Pastef yaa ngi ci mais dafa buñ paree ne la xujj mais foofu da nga naan leen xujj Guy Marius Sagna ministre bu taxaw ne ko xujj danaan la xujj man saa wolof fii. am na acte yu surtout ministre bi doon wax naan su ñëwee ku ñëw du ma xool sa CV yëfi tappale yooyu. Mhm. bi mu ko defee ba dama ko dénoncé. mais bi mu mhm. taxawaatee di ko weddiwaat laa ne kii nag wane na sax dèjà naaw fekk la. parce que wax li nga wax ba pare commencé au lieu nga nangu juum wala nangam. kon ñun ñi ànd jayante wuñu. Mhm. li ci Karim Gueye na jàpp ne moo nekk ci saa na jàpp ne moo nekk ci booy yii. parce que li muy tuddee yalwaan ba nit. li nit ñi ñoom di ko xasee Karim ba koy Sonko yorut woon. ñaari salaamaaleykum. d'accord nit ñi ñoo cotisé. Mhm. jox ko du sarax du dara dañ ne ko ñëwal man pour nga mën a ñëw teewal ñu. merci kon loolu bu ko Karim dee def bu ko ci nit dee xas pour man ñàkk a mën a tontu mooy. mais mhm. dama et il aussi tamit. Euh, ber mbiram. Mhm. bañ a ni carrément damay dugg ci. benn mbir voilà mais boo libre nga tamit boo ko beree gars yi. Mhm. gars yi tamit libre nañ. wax seen ci attaque yi. mais a doon état personnel quand même. non non ah mais li mu def tamit. voilà mais dafa bi. man tey. souci bi Karim Wade du ma ne astafurlaa. bàyyi ko mu wax na saa non non non fi may waxee noonu Karim Gueye ah. man du ma tontu bu ñu attaqué may taxaw di ko dóor ci waa nitu dëgg valeur. Mhm. turam laay tudd mbay woon na personnel dafa war a personnel. moom erreur bi mu def ci waa Pastef di leen wax noonu erreur boobu man du ko def parce que tudd waa nitu dëgg valeur yépp d'accord allez-y Youssouf. man boo ci.